ci réew mii ñu nekk man nag dama ne woon réew mi moom man dama cee amul sax yaakaar ba def naa ne ca jamonoy asura ak tey bariwul sax lu ma ci wax waaye màggal gi laay gis ne mënuma cee ñàkk bàyyi xel ci réew mi tuuti ndax màgg màggal gi day xéewalu réew mi te màggal gi dafa am lu lu mu lëmb ci biiram Eh, lu mu cibir, ci biir ci biir ci biir magal gi magal gi dafa am lo xamne soko topaté ba ci biir dañ cey fekk li ñuy wax ñeegal wa dañ ci wax ñeegal ndax borom magal gi li li fi di reey yépp alis mako ko doon solo nak dudu ma Mbay ak commandant nangam ak fédère bu ñom ak ñi mel ñom ñoo ñepp bi mu ñewé ba tok bi ñuy serigne bi dañ leen man jéggal na li ñom ñepp jéggal na ba jéggal ñi nga sax dañ ma daan def te di ma ko nëbb te feeñuwun ma mu ne ñoom ñooñu ñépp daal mu ne ñoom jéggal naa leen mu mel ne nag loola nit ñi dañ ci dañ ci dañ koo siiwee rek ci bi muy wax ne xafawtu anil ahda yi turan dafa siiwee boobu waaye bari na ci xaside yi fu mu ñëwee nag ñëw ca loolu mu mel ni màggal gi daal dafa dëppoo kaddu njëggal boo xam ne da koy am kon dafa mel ni réew mi fi mu toll bu ñu seetee mbiru màggal gi màggal gi ginnaaw boo seetee taw féex yi yëpp yi am ci biir njëggal daal da ci am solo lool te sëriñ Touba nag njëggal lool yi dafa doonoon message am moom ci ay mbindam yëpp ci ay waxam yëpp ñëw ci xaside yu bëree bëri bëri bëri yoo xam ne boo ko jàngatee rek njëggal da ci am solo mel ni nag réew mi fii ñu toll dafa am nëx-nëx dafa nëx ñun ñëpp bu ne da ngay dox di dem nii waaye ak mbandu pétrole la koo xam ne fi mu ne dañ ko teg ci digg naaj wi mu mel ni saa ne yow da tiit rek ne waxtu wu ne lii mën naa takk lii moom mën naa exploser waxtu wu ne mën naa def explosion boo xam ne ndax xol yi la ci xol yi te nga gis nag ne moom mii yor màggal gi moom dafa jéggale lépp jéggal ay noonam jéggale lépp kon tax na fi mu toll nii réew mi liñ ciy jaaxle ak liñ ciy tiit yëpp mooy nañu dem nag dellu ci njàngalem sëriñ bi dellu ci njàngaleem sëñ bi muy sëriñ bi moom njëgal rek saa su ne itteem la woon jéggal ñëpp jéggal ñëpp tubaab yii luñ ko defut amut ittewoo di ko rey di ko rey boole kook ñoo xam ne dañ doon jëf ci kawam di jëf ku dem ci jasaawu sàkkoor boobu gis Duudu Mbay moom la mu doon def nga dem gis alis moom la mu doon def nga gis sëñ bi natt ñaata yoon lañ koy natt sax teg fital di ko di ko natt rek di tiire ci tiire ci kawam yooyu yëpp nit ki di ko dund te terewul moom bi mu paree ba pare ci loolu daf na ñoom ñooñee ñëpp jéggal naa leen kon lii dimbali réew mi fii ñu toll mooy jéggale nanu jéggale nag waaw jéggale boobu nag moom la ñuy laaj nag ci réew mi ndax jéggale gi kese kese kese fi mu ne moo mën a indiwaat réew mi jàmm ju stable stabilité bi ñuy wut ci jàmm yu réew mi njéggal gi rek te loolu nag mënu caa jiitu lu dul président de la république bi yor réew mi Macky Sall mu jéggale te tax waaye ah, moom mu jéggale te yàlla tax waaye moom bu jéggalee tamit ah ñi nga xam ne da leen a fitnaal ñoom it nañ ko jéggal waaw ñoom it ñu jéggal ko bu ko defee nag njéggal googu nag bu amee ci diggante bi ñoom ñu jéggal mag yi ah moom mu jéggal leen ndax Mandela mi kat jaaroon na ci jafe-jafe yoo xam ne ak la ko waa réewam daan def te moom ba mu génnee ci loolu dafa jéggale ndax ñoom ñi ñi bëgg yor réew ak ci yor réew ñoom ñëpp ndax waroo nekk di wut loo xam ne njariñal Sénégal la ba pare fitna réew mi di ci nekk kon ñoom seen boppit njariñ damaa jàpp ñoom ñooñu ñëpp ay homme d'état lañ opposition képp ku ko wut rek homme d'état nga ñëpp homme lañ kon opposition moom amu ci kon ñoom seen bopp noonu ñoom ñooñu ñëpp conquête du pouvoir rek dafa nekk muy xëccoo gi daw wuti ko waaw daw liggéey wuti ko moo fa nekk bokk bëgg-bëgg te li defe naa bëgg-bëgg bi poosu kenn taxatul ci ñoom ndax bu ñu gisee nag liy xew ci jamono yépp defe naa ne fi mu ne léegi poosu kenn taxatut kon nag nañu dem ci jéggale ñu jéggale ji nag te dindi eh, ñoom li ñuy dundee ñu tuddee ko pensée unique mooy kenn ku ne ci politiciens yi boppam rek jàpp ne ay waxam a gën waxi moromam jàpp na ne moo gën diw kenn ku ne daal sa bopp rek ngay gis waaw waaw nañ dindi loolu nañ dindi daal ku ci ne tañ teg nag réew mi nañ teg réew mi nañ teg Sénégal teg njariñal Sénégal yi waaw bu ko defee loolee nag buñ ko defee nag tënku ko ñoom ci tënkin yu war mat a tënku loolu dana dimbali réew mi ñooñ dimbali